garga de yaa ngi relax de. waaw ñu ngi relax. ñu ngi sant bu baax. di nuyu waa Wasaare TV yëpp. di la nuyu yow jili di nuyu sa cameraman. noo ñëw. préparé ànd samay mbokk yëpp waaj. waaw. maa ngi koy dégg nag. di leen ma saw rek ñoom ñëpp. di ma saw waa jàmm gën. di ma saw tamit Maama Lamine. waaw ki nga xam ne nag moo ci ñàkk bakkanam yàlla ko suñu borom yërëm te xaar ko ci àjjana firdawsi waaw. Ah. waaw. bi nga ko na wala ay affaire u làmb. affaire u làmb laa foogoon nag ay waaye bi ma sama ménagère wooyee ci laa xam ne dëgg la quoi waaw. waaw damay ñëw pour remplir sama contrat di masaw tamit promoteur bi quoi parce que lii métti na investir say millions mu demee nii waaye ñu ngi koy masaw bu baax naan jaam ak pexem yàlla laa dogalam ñun ñëpp waaja nañ pour ñëw bëri si wax dëgg yàlla muy maama tamit muy man wax dëgg yàlla mais gis nañ macha allah boo xamante ni gis nañ ko ci Garga 2 actuellement nii boo jugee ci làmb ji tey Garga ñan ñooy génération ñan nga jàpp ni war ngaa mën a bëri non am na loo xam ne nag dama koy bàyyi ci loxo staff bi quoi parce que ku ci mel sama grand papa Sow ak maam père ba ñoom ñoo gérer loolu quoi ak sama ménagère Bassirou Babou waaw ma gis ñaar hommage Moussa Dioum ak Moussa Balla Gaye ñaari Moussa yi Moussa Balla Gaye yaakaar naa ne su ma ko xamee ci làmb yow yaa tax seen diggante yéen ñaar ak Moussa Dioumi tey li nga leen rendre hommage jaadu yoon la waaye lan moo tax nga gën a fàttaliku lool. waaw d'abord damay jaale ay mbokki Moussa Balla Gaye ak ay mbokki musaa Dioumi Moussa Balla Gaye maa ngi moom duñu woon ñaar kenn la doon combat bi tey bu am taxawee wala may bëreeg Mama Lamine moom moo taxoon wax dëgg yàlla ma jël billaay wallaay Italie la ma fekk France may dem pour ma yaa ngi dem noonu waaye gars yi lay wax waxi Maama ngir yàlla jël ko ngeen bëre waaye combat bi moom koo waxoon ni du ko fekk moom du ko gëm wax dëgg yàlla ànd nañ ci def ci liñ ci war def yëpp yàlla weddi bi may waajaat yàlla dogal na ne ko fi moo tax ma rendre ko hommage di rendre tamit hommage sama grand Moussa Dioum parce moom nit ku baax la nit ko xam te ne da doon fédéré la di leen ñaanal yàlla na suñu borom boole yërëm ci ñoom ñaar ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam samay nit leen daal samay nit leen wax dëgg yàlla surtout Moussa baala Gaye moom wax dëgg yàlla duñu woon ñaar kenn lan tey fa même ñëpp a nekkoon sama kër dafa mel ni Moussa moo doon bëri tey parce ñoom ñëpp ñu ngi taxaw sama ginnaaw ñu ngi dem fu nekk wuti ay butéel indi loo xam te ne Moussa moo ko doon def kon ñoom Moussa moo ko war Moussa Balla moo ko waroon def ñoom ñoo ko def tey waaw kon ñoom maa ñoom benn lañ daal wax dëgg yàlla di leen ñaanal yàlla na suñu borom yërëm di ko jaale magam Bamba ak rakkam ngóor di ko sant baa baax wax dëgg yàlla ñoom ñëpp jàpp nañ ci daal macha allah jërëjëf merci ñu ngi lay nuyu